Sénégal dafa doon réew moo xamante ni dafa am rattrapage bu am solo bu ñu war a def loolu mooy li yàlla dogal ci Sénégal yàlla nag may ñu xarañ Sénégal am ay borom xam-xam moo tax ma nuyu léegi borom xam-xam yi fi toog moo tax bi may ñëw nee naa lépp ba mu des programme bi gu ma jox document yi ma jox yëpp joxe naa ko ma xool ko rapidement gis ni li jëm ci wàllu mbay li jëm ci wàllu autonomisation des femmes li jëm ci wàllu industrie li jëm ci wàllu service gis naa ni def ngeen ci fukki fiche yoo xamante ni dinañ ko exploiter gëm naa ne yu bëri mi ngi ci programme ndax référence bi plan Sénégal émergent la waaye xalaat ak xam-xam pour defar dadul doy incha dinañ ko exploiter te dinaa leen tontu point par point ndax lu ci mënti nekk dinañ ko xool càmbar ko woo leen leen lii mën nañ ko def lii kat nañ ko puus ba telle période lii buñ ko defee du mën a dëppoog def nangam bi ñu waxtaan ba juboo ndax li ñuy yitteel mooy na Sénégal baax li ñuy yitteel mooy na Sénégal gën a defaru fii ngeen teg senegal ci njiitu président Macky Sall amuñu yéene wàññi ci dara bu ñu sañoon day gën a gaaw rek gën a baax pour askanu Sénégal yëpp